kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci jataay bi di nuyu gan yi nga xam ne mboolem goxi Sénégal ni ngeen ko doon wax yëgle léegi bàyyi ko nañ fa teew si ci bis bi bokk koog yéen noo ngi leen di sant ci jaamu yàlla góor gi nga xam ne gu kawe kawe la ci ko xam xooma nag ku xamul waaye mboolem liggéeyub sëriñ Touba bi dafa bokk ci liggéey yi nga xam ne moo gën a gaaw te gën a kewe ci yóbbu nit ca yàlla kon noo ngi leen di sant yéen ñëpp te di leen gërëm yéen ñëpp ci seen teewaay fii bàyyi itte yi boole koog ay fere te yóbbu leen ca dara ngir jëmmi Serigne Touba. waaye na ngeen xam ne koo ki ngeen di liggéeyit lu ko waay liggéeyal saa borom dana la ca defal lu kawe sa njort aduna ak àllaaxira ndax moom moo mel noonu ñu ngi leen di sant yéen ñëpp te di leen gërëm yéen ñëpp te di leen dénk na ngeen sax ci ci lii bañ a geesu dara ba te bàyyee seen bopp ak sun borom ku ci nekk dana la fayal boppam ba sa xol seddu guy muy ci àdduna muy ci àllaaxira képp ko xam ne yaa ngi jàng xasaayid yi na boroom muñe woon nanga ko ne muñe na boroom amee woon yaakaar ci boroomam nang ko ame ni mu dogoo woon ci boroomam nanga ci dogu am fulla am fayde ci lépp loo xam ne njariñ njariñal lislaam a nga ca ak yëkkatiku lislaam ak maanu ci lépp loo xam ne l'islam amu ca benn cër loolu yi na ngeen ko wattandiku te sax ci li ngeen sax na ngeen xam ne xasaayid yi daaw wax naa ci yéen as ndiir loole du jara baamtu waaye dinaa leen xamal ne xasaayid yi lépp loo xam ne lii nit bëgg na ko ci boroomam na ko ci Sëriñ yi نخلو خنينينا يفوق الطالب يسيق التربية سيق التربية بلا تفاقر وسيق الترقية سما طالب يكت سرين التربية كوغنا كوي فصابرم سرين الترقية موكو كوغنا خزي خزي كوغنا كوي فصابرم ترقية تربية مو يار لا يار يار يار يار جانجل لا تغلا تيويون نوتل لا سبكن بغا مانا سوبو نك yoon wi jëm ci sa borom yoon wi jëm ci sa borom it mooy tarqiyatu mooy li la yéege ba nga àgg ci sa borom te nee na sëriñ ya man loolee sama xasida yi ñoo gën a gaaw ñooñe ñu moo gën a kawe ñooñe ñooñee loolee teg nañ ci sun bët ndaxte fi mu ne jataay bii ku ne yaa ngi bàyyi ko ci barab ku ne yeppi nga toog yëgoo yëgoo tàngoor wi yëgoo lenn yëgoo suuf si nga toog naan eh, xasida yi sa itte ak ndax sëriñ bi dana ma ca gërëm ak bu ma ca gërëm loolu képp mooy seen itte fi ne ci jataay bi waaye amuleen benn benn soxla lu dul ngërëmal sëñ Tuuba loolu yi nag na ngeen xam ne bis ni ki tey ngërëm loolu yi am ngeen ko kon na ngeen sant bu baax a baax ci liggéey bi te sax ci te jëme ko kanam bu baax a baax ndaxte loo xam ne lii moo gën a kawe sëriñ bi tërbiya gën a kawe sëriñ bi tarxiya loolu kon ngeen daal di xamee ne kon xasida gi moom xasida yi moom àggale na leen loole it ci laa taasoo di leen wax ne te barkeb xasida yi yi ngeen sax ci laa ci laa daal di gën a rafetewaat njort ci saa bopp ndax sëñ Abdou Lahad ba ma fi indi dafa wax ne dinaa leen fi andi ku leen àggale ci yàlla te booba kenn xamul booba lu lu ñu war a àggale ci yàlla ndekete xasida yi lay lay tàggat gone yi ñu jàng xasida yi waa kees nekk ca njoloxtan la ba kere ba ñuy àgg ak keneen ku mandi lool mooy loola kon nan sant bu baax a baax delluwaat de yëriwaat kan mooy sëñ Tuubaa yéen ñëpp yéen a ngi ci bëgg gi ba di ko jàng ba tàggoo seeni sago kon na ngeen xam ne àgg ngeen ca seen boroom yéen ñëpp kon loolu lu am la na ngeen na ngeen sant yàlla bu baax a baax may goo gi nga xam ne may na leen ko mu doon may goo xam ne gi nit yàlla yi gën a kawe lool lañ leen sàkk te mënuñu koo am bunt bay ma bay maye loole sëñ Tuubaa ak si ubbil ñu ko nun ñëpp ba léegi àgg xasida yi àgg àggale ci maqaamam xutbaaniyatu yomb lool yomb yomb na murit bu ne te loolu lépp am ngeen ko ci ci bëgg gi nga xam ne bëgg ngeen ko xasida yi ak jang gi nga xane yene gi jang ngi yi kon na ngeen ci sax bu baax sax gu mat sekk te rafet njort te baña a eh, eh, dang eh, dang daaye ci li ngeen nek defe ne du jëm fenn serigne bi ci amna takusan seen mag di waxtaan muy toog di jàng alxuraan ndax takkusaan su ne ñaari dana di doxantu ba yàgg mu wut si leen ne lu ngeen di daj lu ngeen di dajaloo fii ñu ne ko noonu day dañ doon xalam naa ku nekk naa mbaa dana dem àjjanaak mbaa dana mucc ci sawara ba ñuy wax wax baagal sëñ bi ne tekk ba yàgg mu ne du yéen a ngi jàng xasaayit yi ñu ne ko waaw mu ne man day saa ngi xasida dem sawara kon nak ko kay warna warna warna war ko kon ne du du du dem sawara ndax man de saa xasida mom du dem sawara te kon yene ngi jang xasaay yi kon ngi ndari daal ne kon du ngeen dem sawara mukk ndax lori yi mo wax ko nit ni kon man sa fal yom man sa fal yakfur loolu mom ku nek ku ku ku mu nek nga gem ku mu nek nga weddi ku ne am nga war gem ku ne am nga droit weddi waye mom ku weddi ku weddi weddi deug mom amul amul solo kon nak mom na ngeen xam ne nii la demee na ngeen sant yàlla bu baax ca loole euh, te it li gën a jafe nee na isa katabtu aw qaraxtu xarwala iblisu fawran maa man taqawala bu ma bindee ma jàng iblis daal daw sori ma kon képp koo xam ne bëgg nga mucc ci iblis mucc goo xam ne gi dana doo na naa ngi faaw te doo tase moom mukk ci àdduna demal di faral di jàng xasaayid yi faaw iblis tàggoog yow demu yoonam loolu képp doy na tey jii ma wax leen ko ci njariñal xasaayid yi yi nga xam ne yéen a ngi koy jàng muy bëgg muy muy muy muy bëgg a àgg ci yàlla te gannaaw nee na yuusilu man ahaba képp koo xam ne bëgg nga sama xasida bi dana la mën a àggale ci yàlla waxatuma la nga bëgg ko di ko jàng kon sax àgg ca yàlla bu ko nattable àgg ga ca yàlla nag ni nga koy defee da bokk àgg gii def sukk fi sa kanam sëriñ mu muy jàmmante moom nga laaj bu leen ko xoolee àggu googee àggu googee xaal la moo xamee ne ku xam xaal manees na la koo misaal ku xamut xaalit nañ la bàyyi sag àgg ci yàlla muy sa kumpa te du la leer loolu bis boo xam ne tàbbi nga ca bàmmeel bu boobaa danga xam ne àgg nga ca sa borom kon ñu góorgóorlu bu baax a baax te jëme ko kanam te jàpp ko bu baax a baax amul lenn loo xamee ne lii gannaaw alquran bu wéyee lu gën a gaaw ci àggale nit ci yàlla muy xasaayit yi Sëriñ Tuubaa ndax mi ngi ko jukkee ci alquran jukkee ko ci lawxul mahfuz jukkee ko ci xadisu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu yamoo wax ne isa katabta tashaartu lbaaxi wa sabaxat malaaiku tibaaxi saa saa xalima gi bu ma ko ne cas tàmbali bind arasa ngi deng arasa arasa ngi yëngu malaayika yëpp a ngi naan subhanallah subhanallah ba keroog ba may àggale xasaayit googi xasaay gëma doon bind kasay bi yëpp noonu la non lañu wacce ci sëriñ bi kon nak na ngeen góorgóorlu bu baax te rafet bu baaxa baax ci seen bopp bop bu wéré wéré wér te lepp lo xane kep ko xane yaangi jang yaa na nga ko sobe ci sa bop na nga na nga na ngay sam sa bop ndax xamone tay yi ni ko ag ci yalla nga boko ko boko xam ko ag ci yalla nga ku saytane daw nga it te ku ku takko lu set wetti nga ku takko sa borom tegle beutum bis sa pawu sallallahu alayhi wa sallam teg bëtam bi faw Sëriñ Tuuba radiallahu anhu teg la bëtam bi faw yetti teg yetti teg war naa tax ku nekk na ngay na ngay na ngay na na nga na nga set wecc di xeeñ lat ko lañ saa su te jataay boo xamee ne xam nga ne jataay bu bokkut ak jataayu xasaay la nga di ko teet bañ a doon sab jataay fépp fu ñu tuddee Sëriñ Tuuba nekk ca buñ ca dugalee leen jugal dem loolu ku ca nekk rek la nga la nga jëlee ci la nga jëlee ci xasaayid yi day yokk waaye du wàññiku ko mukk te it nan daal di xamee ne isa katabtu tasa arsul baaxi wa sabahat madaiku tibaaxi bu ma bindee ars jaayu loolu ku ko dégg da ngay defe ne lu yomb la waaye jafe na lool ndax sallallahu alayhi wa nee na sunu borom am na waxtu woo xam ne ci guddi dana ñëw ba ci ñeenteelu asamaan mu ne kuy tuub ma jéggal ko kuy ñaan ma may ko dana ko def diir bu yàgg màgg sun boroom ga peeñoon foofee mel ni lu daal booba saxaaba yi radiyallahu anhum ne ko waxtu woowu wan wax wan waxtu la ci guddi mu ne laaj naa ko sayiduna jibril ak ñeneen ak ñeneen jibril laaj ñeneen ñu ne ko xamuñu waxtu wi dëgg de waaye baari njël gune aras dana dana dégg aras di jaayu hmm, di jaayu di sàbba nu xam ne borom kun fayekoon ñëw na ci aras kon ci loolu ñëwug sun borom ci aras moo daa yëngal aras te sëriñ bi nee na saa bu mu bindee aras yëngu kon nag loolu lu rëy rëy la loo xam ne xol boo xamee ni bi saa borom defaru ko sax doo ko doo ko mën a jàpp ndax da ngay jàpp ne loolu ëpp na te son borom lu ne la mën a maye lu ne la mën a maye ndax mën naa tàbbi ci nit te tàbbi na ci nu ne ndax boo boo weddee loole nee na yaxawlu bayna al mar'i wa qalbihi diggante nit dox naa diggante nit ak xolam dellu ne wa nahnu aqrabu min min min hablil aqrabu min min hablil waridi doomu aadama noo noo ko gën a jege buumu xolam bu noo ko gën a jege bu mu xorom kon nanu góorgóorlu bu baax a baax xam ne xasaayid yi képp ku ci nekk yaa ngi nekk ci li lay àggale ci yàlla moo xam yëg nga moo xam yëgoo ma nga lay defarit ma nga lay fóot ma nga lay dàqal seytaane ma nga lay indil ci àdduna la lu lay jariñ te du la yàqal mukk du la yàqal sa àllaaxira mukk jàngkatu xasaayid bu ne du xiif du rafle du ñàkk dara noonu te faw rek la la la la ko sun borom di terale kon na ngeen góorgóorlu bu baax a baax ci njàng mi te jëme ko kanam bu baax a baax a baax te yaatal ko bu baax muy daayira yëpp yëpp teew yëpp na ngeen xam ne yéen a ngi ci biir wax yi yéen a ngi ci biir cant gi yéen a ngi ci xéewal gu gu rëy gi di xamee ne ma di leen xamal ne ci yéen ñi ci lan war a delloo xamee kan mooy sëñ Tuuba ni jamono ji yàqoo ku nekk yaa ngi ci loo xamee ne lii luy bu dee defar sa adduna it wóor la ne ne defarul sa àllaaxira loolu moom ku ne xam na ne yaa ngi ci loo xam ne bu ca sa adduna defaroo it sa àllaaxira moom du ca mën a defaroo mukk ndax lépp loo xam ne alxuraan sun borom tere na la ko lépp loo xam ne boo ko defee def muy muy njuumte sa diggante digganteeg sa borom muy rek mooy yàlla na nga xam ne loole boo ko defee lu sa adduna neex neex it na nga xam ne da nga tes taseeg bis boo xam ne adduna bokkut ak àllaaxira kon nu góorgóorlu bu baax a baax ci njàngum xasaayit mi taxoolaat ko leen yéen ñëpp na ngeen koy ndax sëriñ bi waxtu wu nekk ma ngaa cuuraayam ma ngaay lat lat ko leñam lu ku sell la woon ngir loo xam ne waxtu wu ne son borom a ngi lay gën a jege malaaykatul muxarrabuuna ñi ngi lay jege rasulullah ak sahabatu rasul ahlu badri ñi ngi lay gën a jege te foo jàng xasaay itam ñu daal di fay teew maa ngi leen di xamante got gi mas naa fi jàng ay xasaay jës bu laa doon jàng may jàng di jàng laxasaay di jàng ba yàgg mën gees gis sa sallallahu alayhi wa sallam toog Serigne Touba tok jahran jaxran ngi tok ku nekk ngi moñ waaw ku nekk ngi moñ ma tok ba yag mané ne ñokket dugg ci rama ram fi ma defoon sa ay montar ak yef montari ndax montar lo xam mom du won sa mbir waye montari ak yi ci ki luma xoy-xoy la dal maa ngi koy fab di raam di ko sànni ñu ngi may xool di ree ma sànni loolu lépp laxasaay ba ne ngodd ñëw jàppaat jësu di yëkkati di yëkkati ba yàgg ma geesu gisaatuma leen lii da daal moom am naa ko bu wér a wér sama digganteeg ñoom ci njàngum xasaayit kon nag ñu góorlu bu baax a baax ñu góorlu lii ngeen nekk it bu leen xool ca ku ku ku ku leen di sikkal bu leen ko xool ndax fii mu ne lu baax boo ca nekkee fawu lu bon lu bon sikkal la ndax lu bon mooy iblis waaw kenn du nekk ci lu baax te déggoo ak bon mu ko mënta am waaye nag nekkal ci lii nga nekk yow ba ka kanaa ak a bon ba yàgg duutu gis ku nangu ku nangoo dégg la ci yow fii may waxe yéen dékk bi xam ngeen ni dégg naa fi lu ne waaye léegi déggatuma lu ak a baax rek lay dégg déggatuma leneen loole nag ci barkeb Sëñ Tuubaa rek laa amee loole na ngeen góorgóorlu bu baax a baax a baax lii naa tam sax defees sama ma ko fi waaw lañ may xam-xam-xam ak bokk ak fa ma nekk sax tam tam defees sama ma ko fi waaye man fii mu ne ku may ñaanloo ci ay aajoom laa gis waaye gisatuma ku muy sikkal loolee rek muñ ak moy ak mooy ci sëñ Touba moo ma may loolee kon na ngeen góorgóorlu yéen it ba nekk ca loolee waaw maa ngi leen di dénk it ab yar ak i teggin lu waay yëg yëg yëg ci boppam na ko delloo nëbbu saa borom mi kat lii su feeñal ay mbiram ndax bala laa woon dara. dangay nelaw guddi lay doon kon dëkk kon sutura la te guddi googu bala la ko won dangay nelaw mu tege ci yaar yooyu guddi la lay woon te dangay nelaw mu wax la ko kon boo fa jógee jógul nga di ko wax kenn la ngay xam ne li ngay dox sa diggante ak moom mi ngi ànt bu baax a baax te boo boo koy waxee nit it sa morom mën na ne diw li may wax du dëgg ndax moom xamut ci li nga nekkee dara xamut ci yàlla dara xamut itam mbir moomu nan lay doxee ci nit ki ba moom day dem a dem a dem ba yàgg nga xam ne yaa ko kawe mu door laa nangu rek waaye aw làmmiñ moom di see nangu kenn aw melo lees lees lees lees di wax diwu ma gën waaye boo ne maa baax mën na ne maa baax ma sama ji sax ku jamono yi ba may jàng xasaayit aswaay ñëw bi man xam naa daa mel ni ku yaba ne ma sëñ bi de nit ku nekk defe ne nañ yaa gën sa morom ma ne ko loolu nag ma ne ma baaxuñ de fi mu sax foo ko dégg mu ne maa baax te bu laalee sa sa sa sa ndox nga nga toor ko te ma baax rek lay wax kon nag maa baax na ngeen xam ne amul njariñ ndax bu amoon njariñ baaxal ñëpp di ko baaxal te ku mu laal sam ndox nga toor ko kon nag képp koo xam ne kii ñëw na fi yéen naa leen nii laa mel nee laa mel ca yàlla bul weddi waaye bul gëm ndax yàlla ka lim lay may guddi la koy def gannaaw guddi lu guddi gi lëndëm lëndëm it da ngay nekk ba mu nelaw ba nga nelaw mu door la ko may kon nëbb na ko lool kon yéen it dee leen nëbb loolee bu baax lu waaye am ci xasaayit yi na koy nëbb bu baax teg ko ci roog seen boobu sëriñ bi daa <coughs> ndax fii mu ne dëkk bii ak fudut ba ci senegal gii nga xam ne ñu ngi fiy jàng xasaayit yi te julli yi nañ ma nañ ma ñëpp lañu am yaakaar ci ñoom waaye xasaayit yi fii ñu koy jànge ndax nit dana fa dem sawara ak nit du fa dem sawara loolu la ñu mën a ne te man ñi jàpp ne nit du nit dëkk foofa di dem sawara lool laa jàpp loole lépp it ci may xasaayid yi la xame say ni mu toll Cheikh Ibra Fall daana wax ne bu gisee ak xasida ne borom ma gis muy ko yëre mu ne ah moo ko alxuraan di lépp ci sa borom lañu bàyyi ko te lii mujj ñëw waaw te te xam nga muy wax yoo xam ne ju ju leer la waaw lii lii mujj ñëw kon nag lii ngeen mooy mooy leen ci mooy mooyukaay bi waaw ngeen ci mooy bu baax a baax mooy mooy mooy mooy mooy mooyukaay bi te jëme ko kanam rek ma yem ak yéen fii ci kàddu yi yàlla na leen sun boroom may fan gudd ba li ngeen bëgg lépp lépp ngeen am ko sëñ bi nag na ngeen xam ne moo nu yoral boppam kenn yorunu sëñ Tuubaa nu yor sëñ Tuubaa nu yor ndax xam ngeen ne fii de nit tër bi yow na te melut nii kon ba ngeen melee nii xam ngeen ne bon xasida yi mu ne moo gën a gaaw defar nit ab sëriñu tarbie xam ngeen ne nii ngeen defaroo de xasida yi leen defar te am yar danu leen te am te xiifu leen yalwaanu leen maru leen defu leen dara rablewu leen te fi mu ne ku ku fa masaa jaar da da daj loolee de a ko ëpp dara daraja fii mu toll ci wàllu suñu borom nga jërë ngeen jëf ngeen baal ma àq asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu بن بق بق ولا بن يتي ولا بن خنتف ولا لن جن جن كل هنتوا